ñu ngi dund tey jamono boo xam ni njaaloo fës na mooy fës na jaay sa bopp fës na ngóor jigéen fës na fa fës na caaxaan fës na nga xam ni tey dafa mel ni asamaan su dagg ñëw dal suñu kaw foo tourné tey njaaloo mooy yàlla fecc fo internet bi télé yi rajo yi lu yóbbu nit safara rek la waxtaane ñaata musicien ñoo xam ne duñu ñu lu dul njaaloo ñaata ay rappeur du woy lu dul yombal njaaloo ñaata animateur animatrice ñu nekk ci rajo ak télé yi xëccuñu nit ñi lu dul di leen yóbbu safara ñaata tey suñuy ndaw loolu la ñu nekk di ko fooye muy xeex boo xam ni Iblis a ko taal moog ñi ko jàppale tey loolu dem na ba xeex ñu yàqal na ndaw ñu bari tey julli <coughs> tey ndaw ñu bari mënatuñoo julli faalewuñ julli dañuy nekk ci ngénte teg seen seenaa musique di tëgg di fecc hayya ala salaa seen yoon nekku ci hayya ala seen yoon nekku dañuy toog di seetaan télé ay film hayya ala salaa seen yoon nekku ci dañuy toog di seetaan théâtre seen yoon ci julli dañuy toog di seetaan football seen yonti julli tey mbir yooyu afsadat ala almuminina salaatahum yàqal na julli ñi tey julli mbokk yi est-ce que xam ngeen ni njaaloo ci bàkkaar yi gën a mag la bokk kon ku njaaloog jabaru jàmbur ana yan bàkkaar nga def xanaa xamoo boo njaaleeg jabaru jàmbur même boo tuubee même boo tuubee yàlla baal la ci tuub sa digganteeg yàlla ndax tooñ nga yàlla day des sa digganteek jëkkëru ndaw si foofu problème bu mag la sa mbokk nit am soxnaam sa xel dara nekku ci lu dul njaaloog moom muy dugg nga ci pax moo xam ni wallahi keroog ba nga ciy génn soo defut ndànk tuub yowmal qiyaam da nga bokk ci al muflisuun da ñëw yowmal qiyaam indi ay tiyaaba foog ni li nga doon def lu baax la ndeke bokk na ca ñu jël say tuyaaba ci waajoo xam ni jabaram nga séq ak moom te waa ji yëgut ñaata nit ñoo koy def tey ñu am moyen ñaata ñuy liggéey am xaalis di santage ay jabaru jàmbur ñaata ñoo koy def tey ña koy def ndax ñu ngi xalaat yàlla ndax ñu ngi xalaat diine ndax ñu ngi xalaat yowmal qiyaam ndax ñu ngi xalaat ngor ndax ñu ngi xalaat bu doon ñoom lañu koy def ndax dana leen neex ana nga ana nitee ana nitee ba ngay séq ak jabaru jàmbur ana nitee ba ngay séq ak jëkkëru jàmbur ñëw na ci adabul mufrad yonant bi laaj saxaaba yi ne leen lan ngeen di wax ci njaaloo lan lu ngeen may tontu ci njaaloo saxaaba yi ne ko xaraam na yàllaa ko araamal xaraam na yonent bee ko araamal te day araam ba faw du mës a dagan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen nit njaaloo ak fukki jigéen yu amul boroom kër moo gën mu njaaloog jabari jàmbur te xam nga ni waxin boobu yonent bi du du saxal njaaloo mais bon bi mu lay bëgg a wax li ci nekk yàlla subhaanahu wa taala dafa tere nekkaale nekkaale jël nit jabaru jàmbur wala keneen bokk ak moom apartement mu ñëw di la fanaanal ñaata ci nit ñi ñoo koy def ñaata ay nit di leen fanaanal ñaata ñooy toog di woote téléphone ay jigéen di leen fekk si ñaata ñooy dem di fekk ay jigéen ñaata ñaata ñooy dem ci hôtel yi ci baar yi mbokk yi génn leen ngeen jaar ci tefes yi ngeen xool sénégalais yi fi ñu toll tey topp leen tefes yi ngeen xool fi ñu toll tey nga bàyyi suñu tefes dem ba tefesu Malaga nga xool ndax am na différence nga dem Malaga ci Espagne xool seen tefes yi ak suñu tefes fii ndax am na différence benn différence la am ñee dañoo weex ñii dañoo ñuul boobu différence la am ñaareelu différence bi fee Espagne la fii Sénégal la loolu rek mooy différence bi mais lépp lu ñuy def ci lu bon ñun léegi àgg nañ ci ana suñuy nitu diine ana suñuy waxkat ana ñi war a wax mbokk yi émission yi ci rajo yeeg télé yi jotul ñuy wax ci yu bon yu mel nii soo ci waxee noonoo ñëpp ñëpp noonoo la parce que bugguñu kuy tere li yàlla tere nañu bàyyi nit ñi rek zarhum fi xawdihim yalabuun wa zarhum yaxudu wa yalabu xatta yulaaqu yowmahum alladi yuwaaduun borom bi ne bàyyi leen ñu xuus nañu fay nañu ñaata xale yu jigéen tey ñoo nekk ci bakkan bis dana jot nga toog nga ne ah layta shabaaba yaudu aka neexoon ma dellu nekkaat ndaw ndaw ñi est-ce que jotul ngeen daw dellu ci yàlla àdduna bi jax na yàqu na amul muccuwaay laa mahrab laa maljaa wala manjaa min allahi illa ilayhi kenn du mucc lu dul ku dellu ci yàlla moytu leen musique muytu leen njaaloo kon yow xale bu góor ak bu jigéen bu dee da nga ko doon def tuubal dellul ci yàlla ndax bàkkaar boo xam ni boo ko tuubee it mu def mooy njaaloog soxnay jàmbur wala tooñ jàmbur wala njaaloog jëkkëru jàmbur mbokk yi nañu bokk ñi sàmm seeni pay borom bi ne ne wal xaafidina furujahum wal xaafidaat mbokk yi ñooñu nga xamante ni dañuy sàmm seen pay borom bi nee na ulaika humul waarisuun alladina yarisuuna alfirdawsa hum fiha xaalidun غرباء غرباء غرباء غرباء غرباء